salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a saxoo dañu topp seen émission euh, sunu yaakaar amaan nañu mbégte dellu siwaat fii di wéy la jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci injil bi boobu ba léegi laata loolu rek ñu ngi nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mi xam mooy borom jàmm mu jàmmal ñëpp ah, di ñaan ñi nga xam dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp ba ñi jóg ba dellu seen yëngu-yëngu di leen fàttali rek ni mën ngeen ñu bind ci numéro yi ngeen di gis am na whatsapp mën ngeen bind it ci suufu njàngale yi ngeen di gis noonu Euh, seen i laaj wala seen i xalaat ngir ñu mën ko xóotal waaw di leen waxaat tamit rek jërëjëf ci seen takkute ci émission bi ni ngeen koy toppe tey ñu jukki ci Matthieu Sarr ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye laata loolu rek ñu def ab fàttaliku tuuti ci li ñu jotoon a gis ay bés bee weesu ni ñu jàppee woon yéesu ni mu doon er, ni mu doon lekkee reeram bu mujj ak taalibe yi ki nga xam te ne kenn ci taalibe tuddoon Yuda moo ko wor jébbal ko sëriñ si xutbakat yi ñi nga xam dañ ko doon fexeel boobu ba léegi ngir rey ko ñu jàpp ko yóbbu ko ci kër sëriñ si ñu tàmbalee di ko déglu ak di ko sosol foofu lañu ñu foofu la ñu yemoon tey dinañu wéy ci ñaar ko ak juróom-ñaar donc ñu ne Juda am na naqar lool ba xaru ci suba teel saraxalu saraxalkat yu mag yépp ak njiiti xeetu wa gise ngir fexe rey lu yéesu ñu yeew ñu yeew ko yóbbu ko jébbal ko Pilaat boroom réew ma bi nga xamee ne Yuda mi waroon mi waroon yéesu gis na ne daan nañu ko mu am naqaru xol mu dem nag ca saraxalkat yu mag yi ak njiit ya delloo leen fanweeri poset yu xaalis ne leen am naa bàkkaar ci li ma war nit ku tooñul ngir ñu rey ko ñu ne ko lu ciy sunu yoon loolu yaa ko yëg noonu Yuda sànni xaalis ba ca kër yàlla ga jóge fa dem takk buum ci baatam xaru salaxalekat yu mag ya nag fab xaalis ba naan jaaduwul ñu def xaalis bi ci dencukaayu xaalis bi ci kër yàlla gi ndaxte njëgu njëgu deret la ñu daldi diisoo nag jënd ca xaalis ba toolu def defarkatu ndaa defarkatu ndaa ya ngir di fa suul doxandéem ya loolu moo tax ñu wooyee tool booba tey toolu deret noonu la waxoon jaarale ko ci yonentu yàlla yërëmi ak bi mu naan fab nañu fanweeri poseti xaalis ya mooy njëg li bànni xayma woon ci nit ki ñu jóge ko ngir tollu defarkatu ndaayam ni mu ko borom bi sante yéesu taxaw na ci kanamu pilaat gannaaw loolu yéesu taxaw ci kanamu borom réew ma borom réew ma laaj ko ndax yaa di buuru yawut yi yéesu ne ko wax nga ko waaye waxul dara ca la ko saraxalakat yu mag ya ak njiit ya jiiñ noonu Pilaat ne ko xanaa dégguloo li ñu lay jiiñ lépp waaye Yeesu waxu ko ci dara ba tax borom réew ma waaru lool ca màggalu màggal gu nekk boroom réew ma daan na may mbooloo ma ñu tànn kenn ca ña ñu tëjoon mu daldi leen ko bàyyil fekk booba amoon na ku ñu tëjoon ku siiw te dudd Barabaas bi nga xamee ne daa xam ne daje nañu nag Pilaat laaj leen kan ngeen bëgg ma bàyyi ko Barabas wala yéesu mi ñuy wax Kirist ndaxte xamoon na ne kiñaan rekk a taxoon ñu jébbal ko ko te it bi mu toogee sax ca jalu àttekaay ba soxnaam yónnee ci moom ne ko bul dugg ci yëfi ku kooku ndaxte tey gént naa ci moom te sonn naa ci lool waaye saraxalkat yu mag ya ak ngiit ya xiir mbooloo ma ñu laaj Barabas te reylu Yeesu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 yëngu-yëngu bi gën a am doole mu daldi fab ndox raxas ay loxoom ca kanam mbooloo ma ne leen set naa ci deretu ku jub kii nu ngeen xam def leen ko ñépp ne ko na deretam dal ci sunu kaw ak sunu kaw njaboot noonu Pilaat bàyyi leen Barabaas mu dóorlu yéesu ay yar jébbal ko ngir ñu daaj ko ci bant xarekat ya ñaawal nañu yéesu bi ñu ko defee xarekati boroom réew ma fab yéesu yóbbu ko ci biir kër ga ñu daldi woo mbooloom xarekat yépp ci moom noonu ñu sànn ñu summi ko solal ko mbubu xarekat mu xonq cur ñu ràbb kaal ak déeg teg ko ci boppam teg bantu xat ci loxo ndeyjooram sukk ci kanamam di ko ñaawal ne ko nuyu nañu la yow buuru yawut yi ba noppi ñu daldi tifli ci kawam fab bantu xat ba dóor ko ci boppam bi ñu ko ñaawalee ba noppi ñu summi mbubbu xarekat ba sollaat ko ay yéreem yóbbu ko ngir daaj ko ci bant daaj nañu yeesu ci bant bi xamee ne génn nañu ñu daaj ñu daje ak nit ku dëkk siren te tudd Simon ñu ga ko ngir mu gàddu bant ba ñu war a daaj yéesu ñu ñëw nag fa ñuy wax Golgota bi tekki bérébu kaangu bopp bi ñu fa àggee ñu jox ko biiñ ñu def ci lu wex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 di wëcc seen bopp wëccax seen bopp naan ndax sib ko naan yow mii mën toj kër yàlla ga tabaxaat ko ci ñetti fan musalal sa bopp boo nekkee doomu yàlla wàccal ci bant bi salaxalakat yu mag ya ak xutbakat ya ak njiit ya it di ko ñaawal naan waa ji musula ñen musula ñeneen te manula boppam musal mën waa ji musal na ñeneen te mënula musal boppam ndegam mooy buur Israël na wàcc léegi ci bant bi ñu gëm ko gannaaw dénk na boppam yàlla kon nag yàlla musal ko musal bu ko soobee ndaxte nee na naay doomu yàlla taskati réew ma it yaa ñu dajaloon daajoon ak moom di ko xas noonu le yéesu saay na la tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm noonu ci wetu ñetti waxtu yéesu daldi woote kàddu gu dëgër naan eli eli lama sabaktaani li tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ñenn ña ca des fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonentu yàlla Elias ca saa sa kenn ci ñoom daw jël aw sagar capp ko ci bineegar mu teg ko ci kaw ci kaw bant jox ko ko mu muucu waaye ña ca des ne bàyyil nu seet ba xam Ilias dina ñëw musal ko noonu Yoosuf wootewaat ak kàddu gu dëgër delloo ruwam yàlla ca saasa rirëb béréb bu sell ba ca kër yàlla ga xar ñaar li dale ci kaw ba ci suuf suuf si yëngu doj yi toj bàmmeel yi ubbiku te ñu bare ci jeen ci jëmmi nit ñi sell ñu dee dekki te gannaaw ndekkiteel yéesu ñu génn ca bàmmeel ya dugg ca dëkk bu sell ba te feeñu ñu bare noonu njiitu xare bi ak ñi àndoon ak moom di wottu yéesu bi ñu gisee suuf si yëngu ak li xew ñu daldi tiit lool ne ci dëgg kii doomu yàlla la amoon na fa it ay jigéen yu bare yu leen dand di seetaan te ñoo jóge woon Galile ànd ak Yeesu di ko toppatoo xàmme nañu ci Mariama mi dëkk Magdala Mariama ndeyu Saak ak Yusufa ak ndeyu doomu Sebede ya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 dem fekk Mariama Magdala ak Mariama ma ca def ñu fa toogoon janook bàmmeel ba ba bët setee nag ca bés boobu ca bés ba topp bésum waajal ba saraxalkat yu mag yi ak farine dajaloo jëm ci pilaat ñu ne ko boroom réew mi fàttaliku na nu ne naxkat boobu waxoon na bi muy dund naan gannaaw ñetti fan dina dekki dañoo bëggoon nag nga santaane ñu wottu bàmmeel ba ba am ñetti fan ngir bañ taalibeem ya ñëw sàcc néew ba tey yëgle ne dekki na bu ko defee nag ndax mujj bi boobu dina yées bu njëkk ba pilaat ne leen am leen ay wattukat a ngi nii dem leen wattu ko ni ngeen ko mënee noonu ñu dem tëj bàmmeel bu wóor tey ca doj wa màndarga teg fa wattukat ya donc mbokk yi ci saar ñaar fukk juróom-ñett ñaari gis nañu ni jàppe yéesu àtte ko jébbal ko ñi nga xam ne ci duñu yowut ñu àtte ko daan ko ñu daal ko yóbbu daaj ko ci bant rey ko mu dee ñu wàcce ko laxasaar ko ci ay càngaay yóbbu ko ci bàmmeel suul ko fa loolu mooy li nga xam te moom lañ mën a tënk ci euh, Matthieu Sarr ñaar fukk ak juróom-ñaar bi déew àtte nañ yéesu daan nañ ko rey nañ ko suul nañ ko ci bàmmeel comme ni mu ko yëgle woon ak taalibe mi ay fan laata loolu loolu di xew kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali rek ni mën ngeen ñoo bind mën ngeen ñoo woo ci numéro yi ngeen gis waaye it mën ngeen a bind seen i laaj bu ngeen amee ay laaj ci suufu njàngale yi ngir ñu mën a tontu seen laaj wala waxtaan ak yéen wala ñu xóotal laaj su fekkee am na lu ngeen bëgg ñu xóotal ko ci njàngale yi jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel mu ngi leen dox dox daje beneen yoon ci yeneen i jukki